ihe ọma emeela na ya hụ na ibie n'obodo a na-akpọ Washington ị ga-enwe ohere ịrụ ọrụ na family tax credit ma nwee ọnụ ego a na-akpọ $1,200 ya hụ na ee ihe a na-amalite n'ọnwa Febụwarị afọ mbụ 2023 ihe awo ihe awo local tax nke ndị gọvanọ ha mere approve nke ndị gọvanọ ha ritere site na ndị Washington steeti na ihe a na-ekwukwa n'okwu ya ọwụkwana ego mmazi and uh, nyekwe ndị na-achọ ihe akwụkwọ ụdị akwụkwọ ọbụla na-achọ ahụwa na-ejikwana ya emegide gị ihe gbasara gị nọ na mma na nchekwa n'udo na nchekwa so ego a na-ekwu okwu ya ọkwa ego gbasara onye ọbụla mede arụ ọrụ mede arụ ọrụ ebumnuche nke mmemme a bụ nke eji enyere aka n'ike nke les na nkwado ụba maka ozi ndị ọzọ kpọtụrụ wawak if you did and work in Washington state, you can apply for the new working family tax credit. And if you qualify, you can get up to $1,200. Yes, beginning for February 1st, 2023, you can ask for the new tax credit if you qualified. This is not the local tax credit where the governor of Washington state they give. A different from the one where the big government they give. a different from the one where the federal government they give. This no program war for grow with economy. Not to lend, not to trust that they trust you. And this not to something where they go use against you for where they go for any immigration benefits them. What do you they tell them? They go keep on for you safe and they go protect them for you. Even you know they can work, you can receive the money. If you want know more or you want get post they help you, contact Wawak. All right. Good afternoon, wonderful viewers out there. Uh, welcome back to yet another interesting episode of the Bugami Show live in our studios on Gambia Talents TV, and I am your host, Icy Tukuli. Um, on today's Big Gambia show, uh, we will um, have a little tribute for our late uh, Vice President, um, Aliu uh, Badara. Aliu and uh, also uh, we will look at um, some of the newspapers that we have today, and also um, some more interesting uh, stories around uh, the Gambia and also uh, within the Gambia and also around the group. Um, as usual, I am not only in our, in our studios, and I am with my very beautiful co-host. So I'll just allow allow her to say a few words. So Miro, te promote. <laughs> <laughs> waaw ñun nuyuwaat leen rek euh, si seen tur ak seen sant fépp fu waay munti nekk rek euh, di seetaan Gambian Talents TV ñu la gërëm di la sant rek di la dalalaat beneen yoon euh, si seen biir Gambia soo ñu faral di ko am rek Friday Monday Thursday ñu si waxtaanee am am solo lépp li nga xamante ne current issue la dañ koy waxtaanee dinañ am newspaper review am comme niñ ko dee defee saa ne rek. indi li nga xamante ne tamit moo nekk ci internet bi ak lépp li nga xamante ne rek xew-xew la rek ci biir réew mi ak ci biti dinañ ci waxtaanee dinañ ci xajal ñi nga xamante ne tamit ñooy seetaan ah, luñ koy faral di waxee saa su ne rek lu ñëpp bokk lu nekk nekku ne nga ca te li mbiri réew mi la ah, ñun ñëpp a si am cër ñun ko bokk kon saa ne rek biir Gambia soo ah, seen soo la ñoo ko bokk dinañ leen ubbi laan si kanam fépp fu waay mun di nekk rek loo bugg a contribute wala loo si bugg a dolli rek yow it nga dolli ko si bu ko defee ñu waxtaanee ko ndaxte réew dañ koy waxtaanee wala dañ koy pencoo waaye duñ ko pàccoo ah, loolu am na solo lool te réew jàng ak jàngale rek a koy yor ah, su ko defee rek ah, dinañ am kontaan te amaan mbégte toogaat fi beneen yoon rek si seen biir Gambie su Aysatu ko liggéey njoro ñu toogal leen fi rek ñuy waxtaan wi am solo comme ni mu ko waxee tey dinañ walaal tuuti ci ki nga xamante ne mooy di late vice président Alieu Barrow Joof nekk ki nga xamante ne Euh, ku ne xam ne Gambia fan yëpp xol yi tooy nañ euh, Gambia ku ne xam na ne am nañ a great loss euh, great man ki nga xamante ne defoon na impact bu rëy si society bi kon luñ ñàkk wax si moom tey yéen ñuy seetaan it anything loo leen bugg a ci mbiram parce que luñ nit di wax si affaire am rek am na luñ dasal ndaxte ku ñëw rek ak li ngay wax ak li nga koy seedeel ak li nga ko xamal ci bugg a réewam ci bugg a liggéeyam ci buga doomi aadama njaay ci Fonko doomi aadama njaay loolu nekk na li nga xamante ne am na solo Aïcha su ko defee ma delu la kàddu gi euh, abaraka bake ramatulay euh, mbaɗi jibirami ɓe ɓe jiɓe kañente men nak kabonali euh, no studio bakono jang gambian talents tv konka kali e ñami wato wati Banka siyal e jang ka kumol na ta bankola kuola ana samba nyala karola anin fanan ka solution ta ka jibe nana ta uh, some of the um, challenges mi yaran ko banko bo uh, sotaka kona mm. fo min as always uh, lungo lumba kala ka siyale ja ka na wakata fo arami so uh, ka kuol kacha nana ta banko la karola uh, bimba kuma sala mito waleng da standard newspaper ko uh, ta kale nya watu wati nana ta na newspaper review la karola uh, so na uh, standard newspaper la sota yang ando na ko Ah, mimu ila front page ti um, ka uh, ah, ah, NPP la mumu uh, NPP mumu President Barola Patioti uh, na uh, mumu uh, Minister of Youth and Sports Honorable Bakari Waibaji uh, I have ko uh, NPP wants me to contest for uh, KM uh, Nabata wala fanang uh, najeko tears fall as nation bids farewell to VP Juve. Uh, najeko government to sue contractors over unfinished mini stadia projects. Uh, Nafana Jeko um, stranded uh, ferry Joe Hay had engine failure. Uh, fanang uh, at the same standard newspaper fana naje ko uh, yeah ko ko double explains ex, um, absence uh, at the state funeral so no rest of the following uh, so na, na, na, key important one so mm -hmm. <laughs> starting from uh, the, the, the the main one itself i think you, you, um, you started see yeah vice président bi. Eh, vice président ñu ñëw si. Bakary wala vice president bi Dabo eh, then Bakari. Eh, no hanga we have a whole portion of vice president. Mm-hmm. you know because the dinañ isi I video see you put in your ama interview because i am the interview ak ñu bëri. Mm-hmm. prominent people yi ministres yi so. Uh, dinañ bëgg ñu am a special tribute for the vice president. all right then mun nañoo njëkkee kon ci baakaar yi ak yeneen yi den suñ paree ñu jël vice président bi xam ne mooy ne nekk suñ end of programme ñu tëjee ko waxtaanee ci yu bare bare bare. Mm-hmm. so so first yow noo ko gisee xam naa ne this has been something that is you know. Uh, nit yi waxtaanee nañ ko ba soona. Mm-hmm. this is not the first time since uh, bu façon yi people in fact. yàgg nañoo propose ne probably um, you know NPP dañoo taxawal candidate boo xam ne moo nekk Bakary Wai Baji to contest against uh, Bensouda in KM te probably it's not going to be only him mm-hmm. you know because gis nañ am na ñoo xam ne tamit wax nañ seen intention to to to run for uh, mayor in in this coming local government elections mm-hmm. uh, Aisha loolu am na solo lool ah, ndaxte ah, tey suñ gisee comme suñ gisee lii am si paper si MPP ne eh, day wan naka Bakary Badji to contest in this upcoming mayoral elections mm. du nekk li nga xamante ne dafa betta nit yi because yaaga nañ di ko laam-laamee yaaga nañ di ko ngunu-ngunu si suuf ah, jotoon nañ see dégg ay wax ah, ba ñu bari wax ne ah, ñi nga xamante ne ñooy nguur gi dañ bëgg a saraxe ki nga xamante ne mooy Bakary Badji pour mu taxaw li nga xamante ne mooy meyo Bakary Badji nag bii nekkut first time su waree taxawaat pour mu nekk naka candidate pour this mayoral um, elections ndaxte euh, some time back euh, euh, bii rek moom ak ñoom taalib ñoom ñoo fi contestoon mu ñëw liut wiinut bi tamit gis nañ jéego yu rafet yu nga xamante ne defoon na ko doxoon na ko ci diggante ki nga xamante ne mooy taalib di current mayor of KMC mm. dem na ba ci moom ñu waxtaan mu wax ko wiinuma waay lépp li nga xamante ne bugga nga ñu liggéey ko together wala bugga nga ko ñu def ko together pour réew mi wala pour KM rek maa ngi si biir maa ngi sa gannaaw full time waxoon na ko loolu ah, ñu gis ne tamit ah, moom ki nga xamante ne mooy eh, Bakary Badji nekk ne ki nga xamante ne liggéeykat la ah, ku bugga li muy def la ku bugga réewam la parce que balañ ko jox place bi nga xamante ne sax mooy place yi ministre bi moom nekkoon na ki nga xamante ne eh, jàppale na ndaw yi suyu baree baree baree bari ci wàllum ndaw yi la doon dox ak mm-hmm. yooyu ñëpp xamoon nañ ko so moo tax tamit ah, ba gannaaw bi xam ne jox nañ ko place bi sax ñoom dañ ne ne disaaf na ko ah, place bi mu nee na ko parce que yàgg naa liggéey ak ndaw yi yàgg naa lii ak ndaw yi the only issue is mooy right now ni Bakary Badji is a citizen like any other citizen ki nga xamante ne mun na moo contest place mun na moo lii mun na waaye fooguloo ne mm-hmm. going against Bensouda. This is not mm-hmm. the first time. We mm-hmm. all know. Come knock over here. Mm-hmm. But that mom didn't win because he's going against a, a strong contender. You know, Bensouda ku is kuko Warasonga, songa waruta neka nit hamne uh, uh, uh, nit Let's be honest because the guy is it's it's it's it's it's likable. Niti appreciate ne lumneka You know, he has been giving all its its its its its best you know, capacity. So when, when it comes to capacity, you know, in terms of uh, municipality Yambi and, and, and the people of KM, is this a way forward for for for the National People's Party Why? xam nga uh, Aïcha comme uh, danga génn nga taxaw uh, élection su jotee danga wane sa yéene des na si nit yi nga xamante ne ñoom ñooy sànni ndax bugga nañ laa sànnil wala ndéet moo tax ma ne kii Bakary is is like any other citizen ki nga xamante ne na naa génn mu mu contest ci place bi nga xamante Eh, kenn ku nekk rek am nga ci pour nga contest pour nga taxawal sa gox wala pour nga taxaw yaa xam meyo wala kansilo wala boo si bëgg a taxaw rek eh, loolu ila ñantolem comme man ningol gaafo ñaameng pour nga taxaw bara aya eh, fala fana ko fo um, sambi npp be um, announcement o kela so mom but xam nga moom mu ne waaye waaye luñ binda fii nii MPP wants eh, Bakary Badji to contest in this upcoming mayoral elections. Eh, ba pare waham eh, biir kedi mu ngi ci kayit yi wax na ne gars yi demoon nañ seeti ji ko si biir office am pour na suñ ko annoncé suñ ko confirm nañ ko ba because he's not sure. waaw because ne gars yi waxoon nañ leen ne dem nañ waxtaan ak moom pour naka pour mu taxaw mayo. si élection si ñëw mu ne leen ne foog mu waxtaan ak ay nitam ndaxte moom tam am na ñu nekk si gannaawam du tëb rek mu jël ay décision su fekkee ne tamit meneen option mu wax mu ne su fekkee ne tamit askan bi ñoo ko wax ne ko bàyyil sa mayo si eh, naka la ministre bi nga nekka ministre eh, position bi nga ñëw jël li nga xamante nga ñëw li nga xamante ne mooy mayo mu ne boobu dina ko mun a def mu ne waaye right now am na project yi nga xamante ne eh, mu ngi ko mu ngi ko teg te jeexagut te su sañoon ñu bàyyi ko mu jeex mu continuer eh, liggéeyam boobu noonu eh, te ndax leer reer na ko ndax su bàyyee ministériel poste bi nii ndax su su wiinutee parce que noo ndax dinañ ko fa delloowaat <laughs> saay ragal na loolu <laughs> ndaxte su faa génn ñu jël fa defa keneen duut dugal fa keneen waaye xam nga sooy contest dara tamit mm-hmm. you need to look look at yourself you mm-hmm. know sa bopp nga nga nga nga nga nga nga teg si ko nga teg ko si ay sarta mm-hmm. you know um, at one point Bakary ministry yambi mm-hmm. it's it's one of the most important ministries si Gambia because it's it's a ministry of youth and sport si wàllu ndaw yi ak tàggat yaram la bokk mm-hmm. te loolu important na torop so léegi ñoom suñ ko jëlee ñu génnee ko foofu noonu te place bi moom dafa vacant tamit Baby, bala election si DJ. Palace bi du vacance. That is Parce immediately you are going for mayor, uh, danga resign. Yes. For that position. So yo, so resign eh. Ah, yeah, I'm sa permanent secretary. yaa xam bu mu si munti doon dina nekk gum acting bi eh, at the end of the day mais bi dinañ jël place boobu ñu teg fa keneen so loolu la ko ñu bari ragalal ne eh, comme eh, dafa mel ni ñeneen ni seen gis-gis luñ foog mooy dafa mel ni ñii di MPP dañ bëgg a génnee Bakary ci ci jéem bi community nuñ ko gisee laa la wax nuñ ko nekk di seen own opinion parce que kenn ku nekk you are entitled to his or opinion kenn ku nekk ñuñ ko gisee mooy dañ ko bëgg a génnee faxas ko ci place bi hmm. ndaxte am na ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi fa eh, lu ki nga xamante ne mooy Bakary doo taxawoon na nit yi like nañ ko appreciate nañ ko youth si bugga nañ ko waaye wiinut ah, loon te li ma miin right now nii te fi mu nekk right now nii mu ngi am projet yi nga xamante ne mu ngi ko mu ngi ko semba ah, kon li ma wax rek mooy ah, moom moo léegi moom décision bi lu ñu wax ne bool bi si kootam la nekk nga moom mooy seet lan la cee def ida dafa resign pour mu ñëw taxaw meyo wala dafa continuer liggéeyam ah, ba bañ ko fa liggéey su bañee tamit beneen option bi tamit ah, ñi nga xam ne ñooy government bi ñu taxawal ko boobu tam mun na koo jox problème mun nañoo xëy anytime rek tamit daax ko tamit loolu yëpp mu ngi si ah, waaye daal pour mu taxaw loolu choice am la te eh, kuy wiin mun naa nekk moom mun naa nekk taalib parce que nit ñooy sànni. parce que élections moom doo dee xam naka lam fa demee dëgg la léegoo léegi nga am nga xool things si nu moo demee rek nga xam ne fii is a no go area but sometimes things can change too ah, loolu tamit jar na ñu bàyyi sa xel bu baax a baax Aïcha ah, ñu seetaati beneen um, ah, am story bi nga xam ne it's making the rounds all over mm-hmm. ñu ngi ko dégg si radio bi si social media bi am mi nekk um, Darboe um, being absent Mm-hmm. during the um, laying in state of the um, late VP. You know, uh, even though um, during the, the, the process, Gisnen, there was a seat allocated for mm-hmm. him, but then uh, um, Yod. Uh, according to the standard newspaper uh, by um, uh, colleague suñ collègue boobu noonu Amadou UDP uh, uh, leader mu he was not officially invited mm-hmm. to, the, to, the, to the state finale. <laughs> oh, Billy, uh, Aisha, um, um, Hamga, when it comes to um, national issue, mm-hmm. you don't need an invitation, especially if you a top um, um, politician nga. Uh, yow uh, ku ne xam na la si bi su dara sax bokkoon na ci nguur gi liggéey nañ xamante ne ñoom i neen aman am nañ a good relationship bu nga xamante ne sometimes man ma day wax ne ñi dañ dee nax nit yi feeg nit yi si boti nit yi at the end of the day ñoom soo leen fekkee together ñu ngi xoogante ñu ngi nuyuwante ñu ngi waxtaan dafa mel ni dara xewut seen diggante waaye su ñëwee si boti nit yi xeex bi commencé ñiiroo bi commencé ak si lum si munti demee ki nga xamante ne mooy lawyer Isanou Darboe party leader of United Democratic Party waroon naa dem si fi nga xamante ne mooy state funeral bi suñ la invité sax parce que yii xel dafay fattu ndaxte sa toogu bi design nañ ko ba pare yow mi yaa ngi woon si national assembly bi gis nga toogum bi ñeneen ak ñeneen gis nañ toogu buñ design naka pour ki nga xamante ne mooy lawyer daabo so moom lii is not an excuse bi nga xamante ne war naa mu wax ne invite uñ ma war tax deew ma ak nu mu si munti demee rafetoon na naaysoon na Euh, pour moom mu dem toog foofu teewee li nga xamante ne mooy state funeral bi nga xamante ne bés bu mag la state funeral nekkul ñëpp a ko mun a am man ñun suñ suñ suñ suñ time ñun suñ time luñ fekkee si euh, state funeral mooy euh, bu Sir Dawda Bajoo Kairaba Jawara bi former président bi ak kii vice président bi ak xanaa solo sonde mu ngi ci defal state funeral barki démba ñun loolu lañ fi fekkee si state funeral understand nga but waroon na moo nekk parce que gis nañ fi eh, ñëpp state funeral dafa mel ni Gambia yëpp a fa represent parce que National Assembly members si suñ toogee ñooñ represent nañ seen gox gis nañ fi eh, eh, diplomatique yi ñëw nañ gis nañ fi ñëpp ministres yeeg ñëpp ñu fa gis nañ fi yeneen parti yi nga xamante ne opposition parti bi la ñoom ñëpp gis nañ leen fa gis nañ fa meew yi ñoom taalib ak ñoom ñeneen ak ñeneen ñëpp a fa woon ah, soo ah, ki nga xamante ne mooy eh, lawyer Darboe waroon na moo ñëw man si nu ma ko gisee. with or without invitation with or without invitation. Hmm. waroon na moo ñëw teewee lii ndaxte lii national uh, thing la. Uh, moom ci réew mi la bokkate kilifa la ci réew mi dégg na nag uh, war nañ koo jox naay soon tamit. Eh, ñu ñu yëgal ko ko mm-hmm. waaw naay soon na tamit waaye comme que announce nañ ko rek si man sama gis-gis because eh, kii dafa Tuesday si guddi eh, la yàlla jël bakanam ci India mm-hmm. after Wednesday nit yi dem si këram si Wednesday boobu ñu dem si këram gis nañ fa lot of people lot of dignitaries ak opposition leaders yeeg seen ñi ñëpp ñëw nañ gisoon nañ fa ñu baree bari ñi nga xam ne ñëw nañ euh, pour euh, pour euh, li famille bi méttud lu mastarlu leen waxtaan ak ñoom ak yooyu after foofu lañ defee announcement yi ak arrangement yi ñu arrang ñu wax ne Euh, dead body bi dina fi egg si Saturday wala Sunday si Saturday bi dead body bi ñëw te ñu ne dead body bi su ñëwee dinañ ko yóbbu si mortuary bi euh, suñ fa jógee dinañ ko defaral li nga xamante ne mooy state funeral euh, pour jox ko gëdam ak num tolluwaayam num em soo loolu yëgal nañ ko réew mi yëpp te dañ ko wax binda si seen state house page bi wax ko si radio yi wax ko si télé yi kon loolu kenn warutoon a xaar li nga xam xamante ne mooy invitation pour nga dem fa loolu nekkut excuse bu nga xamante ne looya waroon a génn wax ko su ma doon moom warutoon a génn sax mu wax ne yëgaluñ ma moo tax ñëw ma dafa war ñëwuloo rek si si foofu. waaye demoon na si family ñëwuloo rek waaye waroon ngaa naka waroon ngaa noppi noonu rek. continue ko noonu loolu tamit lii la yow sax gis-gis naka nga ko gisee naka nga ko jàngatee yow bala ngaa muuf si foria yow well I, I, I think um, in such events you mm -hmm. know um, he's he's he's um, moom Badara was his colleague know mm-hmm. um, um Nekon si uh, cabinet before some time spending over two years at some months mm-hmm. um, man su ma doon I, I, I, I would have I would also be, be, be there in attendance mm-hmm. you know um, this is not about parce que gis nañ fa ki nga xamantene moy ex vice president bi Fatoumata Jallow Tambajang most of the time you ñu dañ lay attend dañ government government um, or wala state functions mm -hmm. which are known la fa known la fa wara but tamit um, we, we understand the state functions it goes with protocols as well Sure. we need to highlight that as well mm -hmm. the protocol no, bu neka. no the, the, state mm -hmm. function bu neka. protocols that they under mm -hmm even though probably mom, mom he was expecting an, an official invitation, mm -hmm. you know, mm, uh, tam mënon nañu consider you mm-hmm. know as as in probably you know Dabo is UDP nyom ni but at least mm, even a phone call why why why why why Aisha xam nga lii comme su fekkoon ne fake su fekkoon ne laay comme state function bi nga xamante ne la comme dafa mel ni comme state of the nation address yëgaluñ la demaloo boobu nit duñ si am problème yaa ngi understand i wala leneen waaye lii lii yëfi yëfi dee la Lee, thank for on a Yeah. so um Korea newspaper, um, they said the commercial drivers demand new fares from passengers without the introduction of a new route uh, licensing scheme. Fuñ ko teg. Mooma si jaaxaale. <laughs> ko teg xanaa driver yi man dama commercial drivers si ndax ñoom ñoo moom nit wala naka fa demee because yow always yaa complain ñu ngi ñu ngi laa seet lu laa feebu rek xanaa customers si tamit. Eh, moo tax ma dama dee wax ne consumer protection alliance ñoom fuñ nekk ndaxte ñoom ñoo war a taxawal consomers yi ñoo war a ñëw taxawal client yi ensanga because ka paas bi xew nii xam nga ñaata nit ñoo nekk di jooy si biti ñi nga xamante ne lii yokk a paas bi feebawul leen waaye soo gisee tamit government bi ñu ne dañ génna pour ñu yokk a paas gis ne dëkk bi nu mu méttee ba pare dañ bañ driver si tamit seen dog-dogee paas yi ñu stop ko su ko defee nga xamante ne driver bu la jëlee Serekunda daf laa yóbbu ba Westfield wala bu la jëlee Serekunda daf laa yóbbu ba eh, eh, Banjul eh, du ñëw ba Westfield wàcce la jëlaat keneen wala ñëw ba Westfield ne fii laa am ebati pour ñu stop loolu noonu waaye still Euh, parce que lii ñu official yi ñu ngi ko euh, euh, start Friday bi 28th of January 2023 lañ ko naka la start waaye da ngaa gis ne bi lii xewee ba léegi drive fay ba léegi ñu ge dog pass parce que ñun ñu ngi si trafic bi always ñu ngi egg ka wàcc yaa ngi gis ba léegi ñu ngi dog paas ba léegi ñu ngi lii parce que paas bi suñ waxee ne place yi thirteen dalasi la gaa yaa ngi fayee ko fifteen dalasi ba léegi. xam nga moo taxoon last week bu ñuy wax euh, ma ne policy fi dëkk bi am nañ luwaa yu baax but implementation is a big issue so dañ war a génn implement luwaa bi reinforce ko ba nga xamante ne dinañ wàcca si tali yi taxaw ku defut naka sudut noonu ñu yóbbu gis am na benn time bi nga xamante ne during Jammeh time am na buñ fi waxee yokk a yooyu ñu introduce ko drivers yi dof dafa xam nga lu ñu doon def mile two lañ la dee yóbbu suñ la fa ñamalee one week at the end of the day ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp teg mbir si yoon waaye suñ leen seetaanee eh, parce que driver yi luñ bugg a amul fen tamit nañ consider askan bi mm. parce que mbir yi dafa métti te réew mi dafa métti eh, te nuñ ko bugg a doxalee du dem ñoom drivers union bi nii seen union bi driver rek la fi nekkal nekkalu fi kenn consider wuñ customer yi waaye mbiri tamit ah, nguur gi daal nañ si jël matuwaay buñ na sax si lii su si nasaxee rek problème dina bari si dëkk bi parce que gis nga jamono corona bi yokku paase yooyu noonu bu ñëwee Ah, gis nga am na ku ci dóoroon benn boy ba toj botam bi ba mujjee koot ba ba driver bi ñu yóbbu woon ko fi understand nga te façon yooyu mu fi jeexutoon depuis boobu ba léegi ah, soo yooyu war nañ see bàyyi xel. waaw um, apart from uh, suñ suñ jógee foofu noonu ñu gis court rise anyone from hindering Garawal slaves from constructed mosques. <laughs> Uh, is slavery still existing in Of course, yes. Really? Mm-hmm. yëfi jaam yëfi gor yëfi slavery man xam nga lii laa dee wax ñun tubaab bi sax mosu ñoo def dara suñ maam yi ñoo daan jël ñeneen ni di ko jaay tubaab bi ngir ñu in exchange of ay miro tourist ak yeneen things ñun ñoo yàgg a jaamloo suñ boppa ñoo yàgg a ñu def ñu jaam te still mbuubi jaam gi dog a gut ci dëkk bi di Gambia suma réew dëkk bi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokka land of peace lañ wax smiling coast of West Africa but still am ñu xamne they are still crying. I think dañ wara a suñ jikko. yeah because mënuma understand ñun ñep ñu nekk julit nga ne ki du jullee si juma bi. because koku jam because ki jam la. wala ki duñ ko sul ci um, naka nakalam tudati duñ ko si. si baamel bi because kii jaam la te yéen ñëpp ngeen a làkka benn làkka bi yéen ñëpp ngeen a jaamu benn yàlla bi yéen ñëpp ngeen ne yéen ñëpp jullit ngeen waaye sil ñi outcast lañ da ngeen leen eh, eh, génnee si si nit yi bu bugg leen a bokk seen dara ngeen aaye leen juma bi duñ ko te gis nga eh, problème bi depuis 2014 la because man problème bi def naa si ay waxtaan yu baree bari ci rédio bi problème bi depuis 2014 la ah, bi gars yi demee ñi ñoo ooyee ne ñooñu sile ni naka la jaam lañ ñooñu buñ demee si alkaali bi waxtaan ak alkaali bi eh, ne ñoom daal dañ bëgg a ñu bàyyi ñu am seen freedom mun exercise sen human rights ak nu nuñ dundee si société bi foofu noonu eh, alkaali bi na leen ne déedéet soo leen buggee jaamu am daal def leen lu ngeen nangu leen leen yéen jaam ngeen eh, su ko defee jaamu ne ñooy Euh, ñooñ nag ñu ne bu leen alkaalo bi tontoo loolu loolu neexut leen woon problème bi di dem di dem ñu leen a suñ amee ay taka ay ceet ay génn leen ay yooyu mu nekk li nga xam ne duñ leen dee bàyyi ñu def seen ting si nuñ ko buggee def luñ bugg a def rek dafa am fuñ leen a am leen yéen waru leen a am ay satu which is very wrong euh, ba euh, ñu aye leen si jumaa bi ak bàmmeli léegi am ku leen may a piece of land Euh, pour ñu dem euh, ñu sampa fa li nga xamante ne mooy juma pour ñoom ñu faa mun a jaamoo seen yàlla ak lii nii naka la tuddaati daara pour seen xale yi di dem parce que seen xale yi sax nangu ñu join si yeneen daara yi ay sa euh, loolu nekk na li nga xamante ne ay sa war nañ koo xoolaat bu baax a baax léegi nag ñoom looloo leen merloo moo tax affaire bi ñu yóbbu ko ci euh, court bi ndaxte am na yi nga xamante ne euh, su fekkee ne we live in a civilized community mm. foog naa ne yooyu du am parce que am na yi nga xamante ne war nañ koo mun a waxtaanee suñ biir war nañ koo mun a waxtaanee suñ diggante parce que CFO baa ngi fa alkaalo baa fa ciif baa fa ñu ngi am loolu yëpp soo ñi yëpp ñëw ànd ak ñi nga xamante ne ñooy waa dëkk bi jël ñi ne ñi outcast lañ jaam lañ bokkuñ si Aïssatou Cole is very wrong euh, dégg nañ nag li leen jooj bi wax jooj bi joxe na ruling euh, bi mu ne ñii nañ ñu def liñ bëgg a def parce que ñoom ñëpp a am ci réew mi ñoom ñëpp a fi am right parce que um, ñeneen dañ dee fail understand ne kenn ku nekk fi sa right jeexee fa la keneen right am startee understand nga so man Aisha yow lii naka nga ko gisee suñ la waxoon ne amut Gambia euh, wala nga koo dégg ne slavery mu ngi am ba léegi danga naan déedé waaye lii si sax xefi bodi la am that saay nag Upper River euh, region fële ne de region euh, yooyu dafa bari mm. yooyu still mu ngi exist foofu noonu because always ñu am façon problème yi nga xamante ne demee na li which is very bad li nga xamante ne war nañ see set exemple man ma waxoon su ma nekkoon jooj bi dama jàppa alkali bi jàppa seefoo bi chief bi ñom ñep tek leen ben place set exemple bu nga xamantene dinañ ragal dinañ xamne li way waaye suñ waxee ne jooj nañ ni rek te jëluñ benn exemple ben li dina indi si benen problème bu nga xamantene parce que ñi tamit ñu ne dinañ sampa sen juma bi dinañ sampa seen euh, li bi euh, dara bi pour sen xalé yi di fa mëna parce que nga nek ci dekk tamit yow lo fa so démé julli ci jumaa ñu la ayé lool sa du jikko bi nga xamantene yeen yéen ñoom ñu ne loolu war nga ko wax si soose su ko défé ñuy déglu ci sosé ñu gën ko understand euh, parce que ñu euh, suñ suñ koola ci tamit foog naa ne ñooñ tamit seen waré yi tamit dafa dess mm. suñ wara waré tamit dañ yi parce que yi lañ wara emphasize waxtane ya, ya, ya, ya lon ko euh, ala ala ala ñaan tol bi mu kirine you know so i ma man sa kunna ko mandela Ah, minu minu ye lon ko uh, la bunda miyanko wale marata nanata uh, ah, ñin la karola uh, ye kumandi ye si ye kaca uh, because ni continue ta teng uh, probably asena asena kudo wulu kudo wulu mm -hmm. lo kote ke uh, because nte fe uh, eh, science slavery it's not existing now oda kunta kintela mm -hmm. era le but it's it's it's rather unfortunate and we are calling on the government uh, to um, you know uh, do something about it even though um, naa jele ko court ye ruling kala fa pareta but ita stop lo da mal because jesus nyimi fengo timi yalon ko ina wuluta la ina be kuluka ina mm-hmm. be ta everyday wala bije you know so ni to ko aisa to mi ti wala bota nyi eh, a konto mi nyina ti wala tina ata salila na ata ata salila wala salila tan dingo dilala akana ku jama la wuri ka jela fa molka molke niol ta because of such things mm-hmm. so I think it's very important for, for, for the government to to to have a dialogue. pare hani sa ndol ke dingol wafi le wala kefen kol wafi inga nyu gis leen ñu tara suudoto bi nga xamantene no that area yo yooyu mu fa xew de gis nga this problem dama ko yaaga di toppa this is not the first day pour man ma nekk di toppa problème bi problème bi xam naa si bari yaaga naa koo toppa gis nga di gis kena si yenn kiri yi mu nekk fa di def lu nga xamantene ndekete comme ñooñ seen jaam understand nga liggéey kër bi everything moom moo ko dee def moom moo moom lu nekk nii understand nga faale wuñ ko si kër gi ah, soo yooyu xam nga man yu baree bari dama dee laajte dama dama dama dee dama dee gestu yooyu noonu soo problème bi dafa nit dafa nit ñu waxtaanee ko ah, ine Eh, suñ village level beeg yooyu noonu whatever xam ne warutoon a egg sax fi nga xamante ne mooy si si court ak yooyu noonu alkaali bi bàyyi na fi loxoom chief bi bàyyi na fi loxoom sefo bi bàyyi na fi loxoom ñoom ñëpp waroon nañoo waxtaanee li si seen community level bi ba nga xamante ne bu njëkk a mag noonu lañ daan def yi su xewee dañ ko daan waxtaanee. waaw ñu ñu ñu beneen because we are running out hmm. nañoo play some of the videos. Uh, for uh, the laying instead of the late VP New uh, déglu uh, His Excellency President Adama Barrow lu uh, family friend and other people in the Union ne yow the National Assembly be at tamit si kër bi gis still with the um, the point newspaper fii nag gis kansala confirms an another alleged drone shooting at uh, Kant Kantimba village. Kantimba loolu si fooñi la nekk. waaw loolu loolu eh, dem na be fufu. Eh, it's it's it's a, it's it's it's around the fooñi end border la eh, boori Kani line loolu. Mm-hmm. yeah so I I think this is not the first time such thing is happening just is it not mm. three weeks ago. Like <laughs> lañ ko fi waxtaanee. yeah still the government cannot do anything which kind of nation lañ nekk si ban si ban réew lañ nekk loolu tamit. war nañ koo xoolaat euh, parce que su fekkee ne euh, yëfi riow mi euh, ba tey ñu ngi koy nasaxal tey si suba rek maa ngi doon déglu mu ngi ci kayit yi li nga xamante ne mooy indian sirop bi ba léegi mu ngi reyaate ba léegi ba léegi yaa ba léegi euh, ba léegi am na ñu nga xamante ne ñu ngi ko amee tey rek euh, euh, kii Fatou Kër Fatou xam nga Fatou network ñoo génne seen benn raayta moo binda loolu si ki nga xamante ne fële la nekk euh, tànje la nekk doomam feebaroon mu yóbbu ko si lopitaan bi euh, bi mu ko yóbbee si lopitaan bi ñu seet yaramam bi ne dafa am malaria bindal ko garab euh, mu jënda ko si pharmacie bi foofu noonu bi jëndee garab yi moom si boppam mu ne laajte ne ko ne ne ndax garab bi nii nekkut garab indien bi mu ne ko déedéet nekkut garab indien bi. xanaa moom seetut lifin bi. ah waaye yow ki nga xamante ne moom moo nekk pharmaciste wala mooy liggéeyee foofu but Aysatu am na ñeneen ñi nga xamante ne yeah but Aysatu not every some are illiterate no waaye mun nga koo dem jóg bu fekkee nag si am ñaari dama nga dem jokkoo Sheriff uh, uh, uh, Konte wala nga dem jokkoo keneen koo xam waaye li nga si rob waaye li nga xamante ne Aïcha tamit yow su fekkee ne you qualified pharmacist nga tok ci pharmacie bi nga gis garab yi garab bu eh, garab bi nga xamantene wax nañ ne garab bi nga xamne wax nañ ne fay reye indi na problème ray fi ñaata xalé indi fi jafé jafé still yeena nga ngi garab yoy ci sen pharmacie ni di jaay nit ñu ko ko ah, mu ne biñ ko jaayé garab bi xalé bi bu mu joxé xalé bi garab bi condition bi di gëna a yokku wàññeeku ñu yobbu ko fi nga xamantene moy eh, eh, ci lopitaan bi buñ ko yóbbee Brikama ci lopitaan bi xale bi mënutoon a dem toilette ba pare xale bi daf doon wëccu deret ak yooyu noonu so after si lañ ko wax ne kii keesam bi foog ñu yóbbu ko fi jàllale ko fi nga xamante ne mooy Banjul ah, biñ ko jàllalee Banjul ah, ñu dem biñ demee tamit ñu ko yóbbu laab di check ak yooyu noonu ah, ñu ne kii benn liyam bi moo moo am problème benn kidneem bi moo am problème moo tax mënut a seben mënut a dem toilette understand laajte ban garab lam ko jox mu indi leen mu indi garab bi wan ko wax leen fum ko jëndee ba pare expliqué na leen na sax ne moom u laajte woon na ki nekk si pharmacie bi ne leen ne ndax lii du indian sirop bi mu ne ko déedéet du indian sirop bi ñooñu ñooñu confirme ne lii ñu jël affaire bi paas ko euh, si seen euh, high management pour ñu discuss ko ak yooyu waaye moom mu ne ba léegi ñoom laajte nañ ko sax ku leen jaay garab bi mu wax ko euh, ba kooku oo nañ ko laajte ko ak yooyu noonu waaye moom ba tey mu ngi déglu euh, lan ban lan mooy nekk di outcome waxaguñ ko si dara doomam dee na nii ci maari Foro euh, doomam bi nga xamante doomam bu jigéen Aïcha which is very sad Aïcha lii mu laa wan ne ñun gis nga bil bi yóbbu nañ ko si National Assembly bi waxtaane nañ ko waaye ba tey xamuloo boppa bi xamuloo geen gi xamuloo lan lañ si indi ak lan mooy taxawaay parce que yii nii dafa am ki nga xam ne moom moom moo responsable pour lii ñii am na ñoo xam ñuy def yii garab bi nga xamante wax nañ ne génne nañ ko si pharmacie yëpp nekkatu fa eh, war nañoo jàppa ñi teg leen loxo wala ñu def li nga xamante at the end of the day nit yi nga risk seen life. I am so particular about this um, uh, um, commission uh, buñ set up for to look into this aki aki aki kidney disease because we, we, we, we need to know the root cause of such an act and uh, government with a warning nañoo mun send jël um, seen matuwaay as government because it's a sad nation though it is mm-hmm. um, ñoom ñoo fi nekkal Gambian si man yow mm-hmm. so suñ safety it's their responsibility so I think the uh, the medicine um, control agents. We know in itam they have a role to play I can remember um, during some press conference with ma la ca woon kii nii naka ngeen dee <laughs> because renting and license more cost um, activity, mm-hmm. you know. So I think they, they need to they need to work on uh, uh um, um, these things because uh, 77 between there, lo, lo, do, do, do. still people are dying. Exactly, you know. So we call on the Ministry of um, Health on, under the leadership of my able friend and a husband, of course, me like Dr. Samade, you know. Uh, na na na na I you know. Uh, he's he's having one of the most fragile ministries. Ah, te. Um, barki Dembo Ndiaye lañ fi wax ne eh, fii si Ndeman clinique eh, eh, kiñ fa dóor. ci wàllum lopitaan ah li nga xamante ne patient la pour nga atteindre ko su fekkee ne yoo kenn yaa nekk juuti sax yoo kenn yaa ah, over si fifty people patients dañ la ko jàngal. ba pare moo tax dama defat Gambie fii ñu bari dañ nekk ci place yi nga xamante ne bëgguñ liggéey bi ida seen nijaay moo leen fa utal wala seen mag moo leen fa utal wala seen rakka moo leen fa utal waaye liggéey soo ko buggee daf la dee jaral lu nekk dafa dangaa def loo yo saa yu ew yaa ngi seet yan achievement wala lan ngaa def rek li nga xamante ne dafaa gën a yóbbu liggéey bi kanam wala dang see gën a gis sa boppa si liggéey bi waaye soo ko buggutee anytime rek si yi nga dee nekk ay dóor peese nag ay altu ay façon yooyu di jaay ronga garab ak yooyu noonu ah, war nañoo seetaat yi bu baax a baax ñu jóg ko si ban Gambie lañ nekk government gi this government of the day war nañoo jël seeni matuwaar war nañoo jël seen step ba nga xamante ne Gambien si at least dinañ gis seen boppa ci réew mi dinañ gis ne taxawal nañ leen dinañ gis ne doomi réew mi ñor na leen bugga nañ seen réew ah, loolu bugga sa réew nag si jaamu yàlla la bokk Aïcha waa uh, jërëjëf uh, loolu moo nekk suñ newspaper review bi uh, te ba léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV and we are broadcasting live here in our main studios on Gambian Talents TV main studios fii fa la Westfield right. yeah Westfield Red Cross <laughs> building. so um, uh, buñ jógee si loolu dañoo ñëwaat rek si. Uh, tribute uh, um, some of the testimonies Mina hamne démba uh, Gambian across the globe Mineka nekk Gambia ñu nekk fii Gambia abroad Defending co. ko mi late vice président Mineka. nekk um, Badara Aliou Joof mi nga xam ne yàlla moom nag mom la jëloon last week Wednesday you uh, daal di ko jébal boromam uh, démba uh, mi on Monday You gis ne defal nañ laying in state funeral boobu noonu and we've seen um, a lot of dignitaries cabinet ministers mi nekkoon colleague am yi foofu président Barrow um, declare on a national seven-day mourning uh, for uh, in, in in memory of the late uh, vice president. so. Um, loo ñu mën a wax démba euh, the atmosphere at home buñ ko isee ñu euh, jële ko si National Assembly bi Aisha euh, di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek di santaat yàlla bu baax a baax ndaxte bés bi ki am démba muy suñ lead vice président bi Alieu Bara Diouf nekk na bés bi nga xamante ne Aisha képp kuy dund rek bu ka nga am bés bu mel noonu mm-hmm. ndaxte ñu ne ku kenn xamul booy dund boo deyee kenn du la jooy te boo dee kenn du la waxal li nga xamante ne fii nit yi kenn fayut leen nit yi kenn moomut leen xam nga dañ de faral di wax ne sax nit su deeyee dangaa wax si moom lu baax euh, parce que loolu mooy lii loo xamal lu bon nga noppi waaye nit yi faala muñ loolu de soo deeyee su doon reykati nit nga wala sàccikat nga dañ daan carrément ndeysaan deena waaye kii sàcc rek la munoon wala kii ñaata nit lam rey kii baaxut nit still people are saying that fekk sax islam ak lim si wax yëpp waaye danga gis ne kii képp ki nga xamante ne Aïcha taxaw nga wax fa depuis bés bum gaañoo si Wednesday bi bañ demee kiram ba démba si state funeral bi ba bañ koy jébbal boromam ñëpp benn kàddu bi lañ nekk di wax ku baaxoon la ku la ku bugg a réewam la ku bugg a askanam la ku bugg a dëkkandooram bi la ku ragal yàlla la ku ñime digga la Aisha euh, li ma gën a euh, ci ki nga xamante ne mooy di lead vice président yar bi nga xamante ne def na ko ci njabootam hmm. diina bi nga xamante ne def na ko ci njabootam ki he teach and lead by example hmm. ndaxte soo xoolee euh, démba si state funeral bi yaram dafa daw Aïcha bi nga xamante ne jabaram dugga na rek ba taxaw ci kees gi keroog bi ma njëkkee gis jabaram mu wàcca si airport bi suma bët yi dafa feesoon tepp suma xol bi fees ma xam ne kii ñàkk na nga gisaat ko démba mu ànd ak ay doomam ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko dëgërloo nga xamante ne dal nañ su doon ñeneen yi la ñu ngi yuuxu ñu ngi fàtti fàtti ñu ngi tëb di dal waaye ba tey loolu amut si këram xanaa ñi nga xamante ne comme mais bi dëkkandoor lañ wala mbokay lañ ñoo doon ñëw di yuuxu waaye ki nga xamante ne mooy ay njabootam ñëpp a dal ànd ak yar ànd teggin Eh, nga gis ne eh, di late vice président eh, gis nga ki nga xamante ne mooy Alpha gis nga lan lam ko seedeel gis nga imaam bi nga xamante ne mooy imaam ba imaam yaaya ba hmm. gis ngeen lim ko seedeel ci buga ki nga xamante ne mooy waajuram si hmm. fonk ki nga xamante ne mooy waajuram ak fonk gi nga xamante ne fonk na ko because sooy xool man interview na ay ñaar ñetti nit yi nga xamante ne wala yu ko ëppa ñu nga xam ne dëkkandooram lañ ñu ne soo gisee ñoom ñuy jooy ñu ne because dañ am kii fu mu leen taxaw woon am fu mu leen tegoon bi nga xamante ne Aisha fal nañ ko mi nekk vice président xam nga dañ laa jox kër gi nga xamante ne danga faa dëkka yow ak sa njaboot waaye daf na déedéet duma fi génna fii laay toog ci kër gi nga xam ne maa ko sampal suma boppa mu toog fa ak njabootam ba pare dara wecciwut ci li nga xamante ne relationship am la ak dëkkandooram yi mm. ak jegeñaaleem yi ak xaritam yi normal life am bu mu doon dunda rek bala moo nekk vice président moom la doon dunda mm. euh, def ko nga xamante ne mooy dëkkandooram yi suy dem si jumaa bi gars yi seede nañ ne musta ñàkk dem si jumaa su demutee si jumaa bi rek ñoom si lañ dee yëg ne sax comme he is out of town. Hmm. nekku fi moo tax ñëwul si jumaa bi pour eh, otleem nga xam ne ñoo ko dee toppa sax daf leen dee wax ne maa ngi séef fii bu leen ma toppa soo nekkoon ne a very simple man a very respectable man honot kii lu am. ci bi muy dund ak ci bi muy dee eh, soo ñëpp war nañ see jàngee sooy xool keroog bi nga xamante ne fal nañ ko mu nekk euh, vice président ñuñ falandoor bari nañ ñuñ fal yëpp kenn ku nekk am na lu si boot bu si nit teg mm. waaye moom ñëpp apprécié falam gi ne di saaf na ko position bi yelloo na ko parce que am na maxaama bi am na capacité bi am na yar bi te dina deliver comme nu ko nit yi buggee nit yi kontaan si loolu réew mi yëpp di ko célébrer binda appreciate ñu jógee si loolu eh, ñu gis ne biñ leen falee ba ñu leen a waat ñu leen a waatal nga gis kàddu yi nga xamante ne ekkati na fa lenn si kàddu yu nga xamante ne ekkati na ko fa mu gën maa neex mooy dama bugga ñu ñëpp ministre yëpp ñu come together mm. ñu liggéey ñu jiital Gambia bi jiital réew mi affaire bi nekk yëfi ñëpp yaa xam ministre of tourism la bu mu si munti nekk eh, ñun ñëpp ñu booloo ñu liggéey mu wane ne suñ la joxee palace danga war a liggéey danga war a taxawal foofu réew mi danga war a nekk réew mi kenn ku nekk war ngaa gis ministre minister of tourism war na moo gis minister of agriculture gis si idea yu rafet mu indi ko ñu work together nit yi gën a kontaanati gën am yaakaar yàlla def lu gën mu am almost eight months la am into office parce que mai 2022 lañ ko faloon euh, mu gaañu January 2023 um, si la doon am eight months su jeexoon si office am euh, waaye nag yàlla dogalee ko nii mu amoon éene yu rafet yi nga xamante ne éene na ko dëkk bi ak ay projet yu baree bari yi nga xam ne mu ngi ko doon dox euh, pour indi ko ci dëkk bi démba rek baroo bu mu ñëwee si kër gi mu ngay wax ne ko xam nga ni nit yaa ngee jooy yëfi transport transport mu ne ko ñu introduce at public transport nga xamante ne dinañ indi ay boos yu bari def ko li mu nekk public transport mu ne dimbale gox yi ñu dox loolu noonu ba boos yi pare na ba maaj xama février bi la mu war a egsi euh, pour public transport yi mun a yomb ak nit ak yooyu xam nga yooyu idée yu baax la yooyu lu baax la soo Aïcha euh, dinañ génnee xam naa yeneen ak yeneen su ko defee nit yi uh, tamit ñu gën a uh-huh. yaatal waxtaan bi jërëjëf waaw thank you so if the video of the president is ready um, my technician Safia Safia Safia Jaaju can you can you please play the video of the president at the National Assembly gars yi tamit mën nañu koo lekk euh, si nomba bi dina nekk foofu si screen bi euh, su ko defee euh, ñu contribute rek ci programme bi dafa am solo lool lool lool lool parce que lu ñëpp bokk lu ne ku ne nga sax te lii ñun ñëpp ko bokk yëfi réew mi la ndaxte ki nga xamante ne mooy woon vice président bi nekk na li nga xam ne seet nañ ko lu war a kuñ war a màggal la kuñ war a fàttaliku la ndaxte bàyyi na fi li nga xamante ne du musa faru ci ci Gambia ah, abaraka bake rahmatullah ah, mbari njibira mi bebe njibe kanyin temen na kamunali ah, Gambian Talents number be 794 9214 794 9214 794 9214 mooy number yi pour ngeen a euh, jërëjëf abaraka bake bitum euh, momo refsaka kumandiroke euh, mimu na programme o timba minke kam bi na studio kono isi won number kumandino 7949214 7949214 wolem number ti a jandi ramatulaɓe sofia be pare la mumu na technician oti amba falale ko hanim bi alka alni gamen talent tv le be uh, jang bi uh, aisetu ni ramatola ale be siringa le jang nka programme o ke mi alon ko wolen na bi gambia show ti fengo fe mi alon ko wol be gambia kono anin uh, gambia bantala banko to pare uh, na gambia nol bo dulal to ibe a kukendol ke kanje ambol be sambalal nan a bi na program motor as usual a ko aya fo nyamin bimba tribute ke kanana ta na former vice president la mumu late Ali Badara Ali Jufti, uh, Mialonko, uh, his successor president Adam Boroya appoint nung May, uh, 4th May, right? Mm-hmm. Uh, kaje ko uh, atena nung na uh, vice president noti kabring I 5 years ke at the Ministry of Higher Education, abe nung uh, na ye ko Badara la ala ala ala ala ala uh, duniya be moolu ye seedeya min na wole le ñinti a beteya aniŋ kendeya a kabiriŋ ala familil to fo famili ye bantala a anala a siiñoolu minu bee be siirin je ali ye moyi le ye min fo nanata <clears throat> badara kuwo to a keta motu mi yalon ko fana anan keta no director uh, at the World Bank for uh, Central and uh, uh, West Africa mm -hmm. a keta no director tida the anda fana keta no teacher to the at New Zealand High School ay mo jema teacher hanin ta fama barim fula bi min yalon ko kudu najere bebe no tribute ke kam uh, the late uh, Ali Badara Jufi ko ala betiya na ala kende ya hani school ko na ka student on ma ko e nyami ayo fana be fujere na boto fana la keta motu mi yalon ko Kabria appointed as vice president. Uh, during our appointment, a uh, cool Taleke for a uh, uh, parliament la lungo mina ye appoint by ata ke tamutu mi alanko adiamu ta on behalf of our colleagues or mumo uh, other cabinet ministers uh, one of the things mi alanko uh, nakenung uh, even I wrote a story on it wala yinto ko mm-hmm. ako it cannot be business as usual yeah you know uh, kabriya appoint I wolf because niya jibe nung uh, ate amira government betaka nu nyame mm -hmm. time wolang I will come over and mol fana ya fole ko fana kuma a karo la nun ta ka ɲaamin so mhm. a ye o ko le fo ko ni falingo ɲanta ka kɛlɛ a mhm. masa taama ɲa karo la mhm. wo kɛtɛ k'u tibi yaa lɔn ko people were impressed people were happy that um, ye mɔɔ min appoint bibi bibi wo se ɲin kumo taa k'a fɔ a mɔɲol ye um, cabinet kɔnɔ Mm-hmm. na jere fana kabrin uh, um, uh, a banta uh, president no ye uh, condolence book ñinta ka aya yele aya mm-hmm. a ka je ko uh, gambia dingo sitano um, state house ko buko ta ka sign kabrin ni minister jamal ye uh, diamo soto mm -hmm. mi fo wala ñinte ko uh, badara, is always on their toes mm -hmm. ka je ko a yela ila do ko ke ñanta ka ka nyame ako mo jamal ibe ya falo ko akatare no makane ke push mm -hmm. to to to to to to, to their extreme um um um, um energy ni lent be kan nana ta ko ke mm-hmm. ke ke ke la a doko ka nyama mm-hmm. mo da ma mo mo mi so ke no wala mo mi alon ko alaftala banko la alaftala a uh, banko a mm-hmm. dingol la so wada mala so ke na ni ata no video pareta okay you uh, it's a is a video you play no amole ajibe um uh, his successor president Ado Emin for a former vice president. Thank you. Ah, still mun naño koo lekk si nomba yu nekk si screen bi ah, pour ñu contribute ci am si ah, programme bi dina am solo إن عندي أنواع

right. Uh, Barakabake uh, Sophia. Um, yamwede his excellency mm -hmm. um, president adama barrow uh, um, min funu kabla atata um, uh, so ite mina fola no mol yo ok uh, kabra naata je ay uh, bim ñëwee ci gi nekk na li nga xamante ne uh, nit yi rafetlu nañ ko torop uh, ku ne xam ne uh, comme nim ko waxee uh, moom badara yàggut xam waaye liggéeyam ak niñ ko ko waxee noonu la ko gisee eh, ba pare daanaka famille la ci ki nga xamante ne mooy eh, Badara Diouf ndaxte kii di jabaram Andi Sonko moom ñoo bokkoon fële sa Crab Island so depuis time boobu noonu nag la xamanteeg jabaram ñuy tooñante eh, ba Badara ñëw nekk vice président ñu Eh, nekka together eh, mu nekka li nga xamante ne eh, soog na ko ku ne xam na président Barrow news bi gis nañ naka lam ko def bi yégee ne lii dafa xew mu nekka li nga xamante ne si moom laal na ko ndaxte lim lim wax rek mooy kii di Badara bi ko xamee ba léegi bi mu ko xamee ba léegi moom ni ko xamee mooy jub ak buga liggéey always mu ngi koy ñaax si liggéey mu ne su ñëwee wax dara sax a ah, li nga xamante ne daf koy foog nga ne lii dina dina mun a nekk ba ne ko dina mun a nekk kay nañ ko taraay lu nekk soo ko taraayutee doo ko dee mun a def soo yu baree bari xalaat yu bari yu rafet yu nga xamante ne moom la doon indi Euh, pour réewam euh, saa su ne loolu rek la doon waxtaan ak moom euh, mu nekk li nga xamante ne xamante vidéo bi dafaa ñëwaat. na ko play waat hence we um, waaw su ko defee mun na moo play waat vidéo bi nit yi gën koo dégg suñ ko déggu tamit man maa ngi fa woon mun naa koo break down comme ni mu ko waxee rek ñu continuer. thank you very much mm-hmm. so um, ni video pareta Sofia isa play no. so. jerejefal keppak ngam ne golgol ɗo simbiri badara ñaaje kool tata ñaama molle katoke wala kene kool beetata ñaama yo gise mbir mi yettoxe num ware ni ñoosi gontoru jàppat fandi mbir yettame ɗin ware ndela naajam mbi wuraaro man simo ñoom nag si ngoon si fii ndaɗa national assembly jamon naa si neegi député om officiel le loolu officiel la dari ŋaajuɓe ko fon fan wayna fotana janngana badara la baaɗi baaɗi yaala ngora dimbayato kana ni ye duwañoo ñi sango dama gis ne war la si man ba jóge Banjul ñoom fekk jëmati badara bi ak dëkkal nara ni ñu a leen badara tiis bi ñu wax laftanaara no mbaade waato la wonani o wonto suudu si boppam par min mool kajaarɗe ko ñeko sécurité ɓe ñaame ani jeeɓe tarla ñaame ma baake le prété taraji najje fel ɗo pour yoga nekk ba ɗum woto wuraaro mbitaaje bulaken din naata pour que fuɗa famille ñimma ɗon moo tax mo ñëw attiti famille ɗi ɗi anin terol ni signol a karitamen de gandoɗi ka ñitandi ka foɗen ten badara ɓe dow kolan ndi wonene ñumde ñuge ɗiyen badara na e dow ko kabin homo badara molleyaala kuwo foññe e ko am am ay ndindu mo am giram yatan mbinda mansakunda fomla te kama ngeen ɗega ko mo yela banko kanu sohlawnani ñugamna soppane sen rew laftanu molla tamit wayatara wolom ndela signa foloti pour que ɗo ko ke masakundago mone wolma jelɓeni yon pour liggey singo aman a jama aman siya duniya kono lolne ɓoy ɗum mam ɗo ko ke masakunda kono ala ena tomboyake président ala ɗo ko foloy ko président yake ni yàlla ñoon daan na la defal président te njël bëri liggéey ci nguur nekkat liggéey président bare ala na raw harje ba kenya na taw buña ba kenya waaye yàlla ñoon defal nguur sa ko ak talaka ma ko woto mo be ñanta la la ñin ko ala don ne ko mo tom won nak jew mon nañu gom ne yàlla da kay fal yàlla da kay tan ana tante tombo en kewti yàlla ñoon daan na mo def ma loolu bare no mo ñi ne ala wollo na pilal ti mele be lola pour kam ma ko do waaye ma ko kay dina ñay lekk pila ñu jappala ma ko liggéey badara naatake ko mo sifaade badara ñoo nekka fotan liggoogu bare niyaaje naaye ɗo koke sañillu naata wuri ndi ko ɗe naatake vice président oto soɗise mandigue teriya o tan naate en mona a ɗum tan naate en lammaya ɗum damnaten o ɗum wadde ɗum kana findigal nde fof mbi yimɓe tembo men message yalla ke ndi koto mbe ala tentula baake wonnan mbaaki sante yalla ko baa aɓe toña to mbefaniya to mo yimɓe yimɓe ɗiga masuma negi ten ya bari naman jutu ñoola waya heɓate won ɓen boor andum kabinna ɗum ta dow ko kono kono ni badaranene man sonka depuis ma commencé badara liggéey ñoo fewolo ɓen yo fomɓe ñin tembo men ɓe si jamono mbima ɗo kiwi ala ñi muso min be sirin ten ma jabaran mbi tohni ten ndele folo ñi muso lo jarni badra be muso ma ji ka ham jabu jigen bi bala bala ko ham sa wayri na be non karam bon kulil nem na be non kraba ila parce que ma mo lo wono bene e ko ne ko kraba ila o don ndele folo e far son ko non jarni badra ko ma ma ji ka ham far son ko bala badra ko ham o do teriya ni bariya dum dandini far son ko tena jarni bi ko ko kari to ko ne sumo de far son ko ñamo mi mo karfalela so de ma ngi denkani Ya bari ndelenga ɗon badarañara oɗo kar fof ñooɓi ɗum jeele janninti fonko ya yamar ya kilin si oɗi ɗinni on nte men ɓe sirinte ndegam banndi kulola sango men ne kadi sababu nen faama faata manda ma jeehal e gon ñetti ñetti weere tuma ko faatu yaata dow gooten mbulu e ka o ma liggey anndu ngaddo kol sodo amonna e rakka ngamol sodo melo e ma amon ɗi ɗum amna ñima mbota wo tembol to ala e makoye wole kono fom fudata binkere bankola to woto ite le ala tentu baake fof oɗo dañin tembooto woni yen sedagen yala ɓe dowde mo ama ɗi ɗi ko ni fama faɗa si kumbonoon ina sappa kono sumaɗo ko mbe joy bar ni kumbota ni meede ay soo joy e non fi o e salo e malla e fan ko dafa mel ni woluwolu sama ko konon bari si de salon ka ko e famala samato biite leya ɗum way ngen no fananna

keɓal a goo waye dana hoɓa faddore keri tosaɗoɗe ken goo man lafiyo moyla jan lafta e tel ɓe kafo yeke kukilode ye tewo sidi e ñin korɗamuta e bamamuta bogume dewi fosomo ko hoɓe mango nekk ɓe ɓe ɓe no git ɓe no hela gen jappale sen yaaɓi to wayli wodrone ɓe sambala ñaato wodron fana ne ɓe sambala foye futata badara fudara daame a sikeno fan itele futata futata daame badara man futa woto a sikeno bari wo ɓe kato ani wakkilo wole ɓe fudandila jeema góorgóorlu rek moo laa moom mën a amee jox bindel ɓe damin ɓe badara jaylal doron te ñun suñu kata jamale ke man bi université men ɓe lokante te université wato men less than one percent nga university ñin tawol won less than dum manke ben percent ci lañ jëlé university bobu ko leata num baaki jafé won na lool bari bi felante ak le ban na bari ban rafé tata ba mbaga ñaan mu ngi melni le university ko muy nit jeexi way ba mu ngi ni na jeexu ci project killing me alon ko ak le ba ko do ko ka fon le tamo project len project mu ma mom la mo ko liggé de mom mom ci bopam projet ko ñi man ma bara do ko kitale fa banta ñanta kila jenwa e eh, february karo ko projet uh, bi public transport pour improve public transport a ah, ah, naata a ñi ko mbi exécutif décisionné tala nga feere ke pour nga boosol naatina a keme nga ndat gambia mu ne wadda exécutif ne téeméeri ne ki gis badara nga taa kuwa ko ñi ko doole tala ko ñi tumtel defon be décision ne ko ah, badara nañ ko dinañ a principal ta de ne ku am ku am ku am dalil la de aɓe doyari mbara fati aɗa a hañi ɗuɗila wawi a loota konoma fo bosol ɓeydata saha ɓe india bosol ñantanala gambia fegwari taw so mbirmi temna ɓe sagiade ɓe sade allah bosi yeb defatnaga ni ɗiɗɗir india mbara felenti amanka ñaala mo ini mbaɗɗo oto badra e doku balek ma so ndar ko on badal liggéey mag la defal nguur fi ay place ba fanan ne tujee dafa def place mag la fi bàyyi tamit mbe ala daani la nga mo moosoto men bu ko badara ngi ñaan yalla ñu am fa nit ku melni ni badara a soto ɗum te fee yàlla baa am ko rap yo mbal won ka ta ka ke vice president wot jël ko dem ko vice president ku dantan wala yake mi nga tom mbir ay mbir ni mo tan ko la tal ka fay londo so day ma so ndar ba wono government government anna ka and president will after more la mo me alon ka man sekunda lo mo me alon ka sa advice ma la mo ko am gur pe ko ko digal te affaire na prete do ko lafta fana te bugon men tamit mo me yala kabe kele le vice president ot i la modi me yala lu wala kele place la le le bon chaque jour chaque place de campagne le jet man la no mo fa ko euh, badara yil be pass le amantran na place o ñinin ate ɓe ɗo kuwola ndele yaɓe ɗo kuwo gambe oto wole a futandi o place oto oto wo soto o ñokon aman feya bake bari ala man satalla me alon ko waye ko be da kol be baati le bulu mo yore ba e murun be man satalla le be te suno ko ko si bumi ala ko di ko ñaan ne asi moo din na ko ten ke me a lonko wala ɓe ken na vice president oti mu jox ñu keneen nga moy nekk suma vice president me ya lonko pale ba pour ka doko ke katandi badara e doko me nan pare di ye lu ko kon palera sax ye mbe la fila family be yo ke ni wona family be ngende ban ma ñaan ko mbe la fila mo be yo ke ni wona mbolo be ngende ban ma ñaan ko sate mol alkalol almamol alkali mami wa de kabi isa lon ka ko kon dantale kolta man ni ñaabe hamde kon tan ni ci bir no la ko no ole mel kato kembe be tentulam be be jayla nder gol gol gol kana duwa yiwonen tan pour no jamti kana duwa ka saɗa mum naati ɓe koɗe indi jaal saɗa ko ta naati nakke ɓaalo jaalu nenɗogel ɗoto ɗi kedi kan alaji alpha kan sabari gawo han jaɓoɓe nen muñ ala ya ko dandiɗami aka bari jikitele ka fo ko yeddindiwol mara ñaami amna yakarde min yere haalay na jiki baala soɗo ka fo ñindindiwol ɓe continue lal amna yakarde haalay nden continue inchallah an mbiɓe bama fana mutal inchallah den nen jaɓol seni ay damit assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah bismillah salatola nabi All right, uh, Barakabake, um, Sophia Juf uh, for uh, uh, kabrabata national assembly mm -hmm. state house mm-hmm. fo wurara ndingola natata kata futa mm-hmm. um, futa mm-hmm. um, late vice president la family la mm -hmm. konu ani fure nyanta katale banane ko uh, choir ah. yamming protocol so fana benu in it's a working day probably wana mdunta state mm but uh, abe nu nyinya la fanan anin freweta mm-hmm. uh, paski uh, security benun je nyamen uh, uh, security was very tight uh, uh, king ko linyo kele kende ke mm-hmm. uh, because ñu don control everything uh, moto yi ak uh, fofu nonu ñep security de de demba sen liggey bi was wonderful def nañ a very wandaful job ñoom ñëpp ñu cooperate ñu liggéey together uh, so nit yaa nga expect ne uh, comme président bi uh, daf doon ñëwaale si suul bi ay li ba tey waaye yóbbu benn la sotti si ak def si la lu bonoon mooy mu ñàkk a ñëw waaye at the end of the day ñëw na bim ñëwee tamit moom ak ñi nga xam ne ñooy famille bi dugga nañ si biir néeg bi am nañ a close door meeting ñu waxtaan foofu noonu li nga xamante ne duñ ko wax si biti kulloo la seen diggante ñoomi neen euh, ñu génna biñ génnee tamit euh, mu ekkati ay kàddu si ndaje bi gërëm ki nga xamante ne mooy vice président mm-hmm. euh, bi di lead vice président Alieu Barrow Diouf liggéeyam bu rafet ak ni fonkee liggéeyam ni mu buggee liggéeyam euh, mu ngi wax si biir waxam sax ni xëyul rek taar na ko li nga xamante ne mooy vice président parce que daf ko def ministre of higher education science and mm-hmm. research moom la ko def euh, bi mu ko defee loolu noonu euh, mu bàyyi xelam liggéeyam di bàyyi liggéeyam euh, bi mu waxee ne daf koy def vice président tamit ñëpp a ko rafetlu wax ne ki nga bugg noonu matee na place bi te biñ ko ko joxee réccuut ko saa yu nekk ñu ngi waxtaan saa yu nekk ñu ngi jokkoo te lu ñoo waxtaan wala lu ñoo jokkoo mooy si kàllaamaay liggéey bi rek la ñuy waxtaanee la ñuy jokkoo ekkati fa tamit njaale. Eh, jox ko ki nga xamante ne eh, mooy famille bi eh, waxuñ nag amount bi bi nga xamante ne moom la ko jox waaye xaalis bu takku la joxe nañ ko foofu ci kanami mbooloo mi ki nga xamante ne mooy seen family friend di Alpha Kane moo jël loolu noonu ci loxo président bi si turi njaboot gi foofu noonu ekkati na beneen kàddu tamit wax ne kii di late vice président Alieu Barara Joof nekkoon na ki nga xamante ne falut ko ba pare mu bëgg ñoo jël place am bi because ñeneen ni mu ne dang leen dee fal ñu tagget sa place bi waaye dafa ñëw instead pour dimbale ko ah, pour taxawu ko ci li nga xamante ne place am bi ah, kon tegutoon bot palaasam bi moo tax liggéey ak moom mu neexoon ba pare daf ko doon jàppale ci yu baree bari dem na ba nga ki ne sax ah, kii yar bi mu yar si njabootam gi si gis-gisam moom ak yar bi def si njabootam bi dëgga la njaboot gi dénku na le ekkati na fa ay kàddu tamit comme mu dénk ko njaboot gi wax leen ne nañ continuer nu seen papa meloon because moom gi xamante ne mooy président bi sax bi mu amee ñetti at la papaam gaañu bàyyee ko ay raka euh, mu nekk li nga xamante ne euh, dund na ko waaye muy taraay di taraay moo ko eggal fu mu egsi nii kon njaboot gi tamit am na yaakaar si ñoom mun nañoo def lu ëppal lu seen papa def wala legacy bi fi seen papa bàyyi ñoom mun nañoo continuer legacy boobu noonu ñu def lu ëppal ba ñoom tamit seen tur dafa des si history euh, Gambia bi euh, soo dénku na loolu njaboot gi ba pare nuñ nekkee together ak nuñ buggante ak nuñ toppante bugga na loolu mu continuer bu mu dégg ñu ne léego léegi ñu ne da nga dee dégg nit nee na ñu ne ah famille bi nuñ jubooyee woon doomam yi nuñ nekkee woon benn waaye léegi seen papa nekkatul fa rek xuloo bi commencé coow bi commencé mu ne buggul ko faa dégg euh, mu ngi sàkku si askan bi yëpp ñaan ñu ñaanal njaboot njaboot gi yàlla teg si loxo ñoom tamit duñ leen bàyyi xama ndax nuñ ko promise parce que fii nag Gambia la euh, su nit dee si famille la dee njëkkee Eh, soo amee yaay bu dee wala papa bu dee di nga gis ki naan may take care school fees bi maay take care sa lii maay lii lii may def lele wala kii dee ñu ne waa dinañ leen bàyyi xel dinañ leen di dëggala kooku njabootam defar na njabootam mm-hmm. lépp xam naa ne njabootam lu des si seen dunda eh, duñ sonna parce que jàngaloo na leen eh, ñu ngi am seeni liggéey ñu ngi lijjanti seeni things soo gisee ñu ne pour ñu seen njaboot gi ak yooyu pour ñu bàyyi leen xel di leen sóoraale te xam ne seen papa def na fi lu baree bari te séq ak na ko ñu baree baree baree bari ñu taxaw leen ba duñ ne seen papa su fi nekkoon euh, xam nga doomam bi dafa wax euh, lu am solo muy Hadijatu wax na lu am am solo euh, si fi nga xamante ne mooy si National Assembly bi bi mu ekkatee ak kàddoom taxaw ci kanami naka la deet ba di papaam bi mu ne góor gi tëdda tey ñoom dañuy sant yàlla nga xamante ne Eh, lu yàlla wax la rek moo war a am kullu nafsin saay xatil mawti ñëpp ay mos eh, waaye seen papa si anam bu mu demee ak seen papa si taxawu bi mu leen taxaw woon ak bugg a njaboot am yar bi yar ñoom yaakaar nañ ne seen papa nekkatul su fi nekkatul sax ñoom dinañ dinañ dinañ tegu ci yoon yu baax ndaxte li seen papa def si ñoom la ah, kon loolu ah, sant yàlla la ah, jooyloo ne ñu bari Aïssa man bo foofu nekkoon ne a very sad moment di nga xamante ne ay ay ay ay over cry parce que um, maa ngi gis ñëpp a ñu fa toog du ministre ñëpp a doon jooy e, even tubaab bi fa nekkoon sax dañ doon jooy because those words were so emotional ba pare xale gi alxuraan yum jànga ak ñaan gum ak nuñ gomee yàlla ah, loolu rek Aïcha sant yàlla it's a big plus si ki nga xamante ne mooy di late vice président man li ma waxaan rek his father was a mm-hmm. nga xamante ne lépp xam bi moo nekk ca dëkki obba moom la continuer Euh, parce que euh, euh, su ñëwee daf ko wax ne sax nañ nañ naka duñ ceeñ sax at least ñu mos leneen everyday cuuro ak ruy ak soow te bim dee rek am na ku ma wax ne ma xay jaaykati soowam bi sax bi bi incident bi xewee rek am na ku ma wax ne ma jaaykati soowam bi sax mu ne dafa laajte lu xew ñu ne kii moo mu ne laa suma client la maa nit wax na ma loolu balaa doom bi di wax loolu sax si national assembly bi mu ne suma client la suma gisul sax daf ma dee wax ne indil ma sow soo mu ne am nañ waaye dafa dundal doomam yi loo eh, kii ba nga xamante ne eh, ñoom dinañ am ak ñàkka la ñu amale mënoo ñoo ñëw ne status bu nekk la parce que gis nañ fi doomi borom alal yi luñ dee def si dëkk bi ñoo dee def disaster yi ñoo dee def scandale yi ñoo dee def lu baree bari fii nii si dëkk bi nii waaye ñoom dañ dal lekka sax dañ leen yar si nu ñuy demee eh, ba nga xam ne comme ñoom loolu dañ si sant yàlla tey mu ne ni mu mel rek li ma gën a neex bi muy kañ papaam dafa neex nga kañ ki la jur mm. nga kontaan si ki la jur mu tëdda ne la dee wala mu toog nii am bés ñu koy seedeel lu baax loolu ku nekk na ko waxal papaam wala bugg na ko waxal yaayam mm. mu ne góor gi tëdda nim nim rafetee loolu rek yàlla noo mel rek noonu la la dee liyee loolu jëfin boobu moo feeñ si moom rafet na taaru na bugg na doom bugg a fonk na doomi Adama Njaay mm. ah, loolu nekk na li nga xamante aisha ah, Eh, daw na yaram mm-hmm. waaye liñ koy ñaanal rek mooy yàlla bu ko cat tiitu fi nga xamante ne mm-hmm. mooy si bàmmeelam amiin amiin abaraka uh, uh, baake uh, ramatulay mm-hmm. wo keta kumoltini yaalonko um, adingo uh, momo adama jufti a welfanung at the national assembly aning fanang uh, his excellency president adama baro kabreng aye uh, family ta uh, kate jibe dulam yalon wolem um, ida uh, suo kono min mo bañole mm -hmm. ti uh, wala uh, bi um, mol min yalon ka uh, boroke uh, mom the euh, Gambia Athletics um, euh, organisation or association bi sanga basoto mm -hmm. nanata funding kela karola uh, mi yalon ko ay uh, Gambia dula jamale to aka a borole ke andun a farmansata bake nanata borola karola mm -hmm. a mobe a, niko a, jumalen energy ti kafe koni abota minto le botrop abota minto talinde mm -hmm. a, wakata a, nikuya bati bi mm -hmm. a, kaje a, ko a, nyin a, mereng mereng miyalon mhm. mm -hmm. ko uh, Amita Boroka, he's very committed, very energetic. Mhm. You know, ye idi ye dawo da animal ka to fair lale mol katu a uh, jelo da mala bi uh, ah, alay e wale uh, ah, niyo doya mm -hmm. ana je ko uh, ah, funding ke jamal bi je amin uh, yalon ko e be gambia uh, banko kono ana bantala uh, ye uh, dolye tribute ka safe idrissa ye mm -hmm. ko ala kende ya anin ala uh, willingness nanata um, uh, uh, uh, ala uh, football football uh, borola karola mm -hmm. bari mu be yalon ko aka borola gambia marathon um, la solni yeah um, mm-hmm. it is very friendly you know very energetic alafta fongola alafta badingola alafta mola uh, bitum um, mbaduwa ala uh, ya uh, bondi daming uh, kasamba daming ay uh, jefisi andi baka bota daming andung alo uh, mm-hmm. a fututa mamni andun wobe damin ten alhamdulillah barinka min duwa wala nyinti ko ala min fengo fenke jongo mm-hmm. mankuno je mm-hmm. abetun mba saro tala aliye jande mbafala fana yuko ali aliye idrisa ye alo mari ala ya bondi uh, ala, ala, ala, makata dami jesun ni abake uh, ah, we, we, we pray that um, Allah will forgive his shortcomings and also uh, grant him jannah to free drafts uh, it is it really indeed sad but then uh, di jale uh, ñu maron ku na family ñu nekk talinding ak uh, fu rek di den wax uh, Euh, dëj bi ñu ñoo ko mhm. bokk te suñu dëj la dëji euh, Gambia la dëji Gambia la tey sa yud maam waaw te mhm. pare yàgg naa represent Gambia this is not the first mhm. foo ko dégg nga ne énergie rek daf la nit yi yëpp Gambia yëpp loolu lañ ko xamee soo demee Botrop nga ne énergie dañ laa dañ laa yóbbu si Idrissa you very friendly euh, bugga na nit soo di ko ñaanal rek yal na ko yaara xaaree aljana ñaanal ko yàlla xare ko àjjana ñaanal aji jiitu yëpp uh, yàlla xare leen àjjana rawatina suñ vice président boobu nga xamante ne fan yi yëpp uh, uh, Gambia am nañ naxar Gambia am nañ a loss bi nga xamante ne ñu ngi ñaan yàlla Aïcha kan la ñuy amaat ban vice président mooy ñëw ku mel ni kii yal na ñu yàlla may ñu ku mel ni kii wala ku ko ki nga xam na xelam ak xalaatam yëpp dafa ñëw bugg a réew mi bugg a defar réew mi bugg dem kanam réew mi fi mu ne loolu la ñuy ñaan ku jiitu ñi ñu ñaana ko yàlla xarale ko ci si firdawsiya ak idi mi nga xamante ne mooy énergie ndaxte ki nga xamante ne ndaw la ah, te ñu ne ndaw yi ñooy élegi réew mi ñoo amee réew mi kenn xamutoon lan la woonoon a doon indi fii jo su fi nekkoon kon palaasam mu ngi fi woon waaye mbiri yàlla moom mu ngi rek parce que ñu defuñ yàlla lu tax mu yóbbu leen ñu fi toog tamit defaluñ yàlla lu tax mu bàyyi leen fi waaye yàlla mbiram noonu la te dee mënut a ñàkk kon saa yu ne nam ñu fekk si lu baax di ñaaxaat askan bi rek ñu gën a bàyyante xel yërëmante wante dimbalante te xam ne Gambie ñun ñëpp ko bokk ñu bàyyante xel te xam ne tey yow la ëllëg sa morom dunya bew la ñaama ndan ndan ngee benn yalo nga mo mandin kan ko ngo moyle ndanange ndanange bendo don bi beje kon nañ bayande xel ay sa jërëjëf euh, di tang suñ euh, team bi Binta Njaay ak Safia Jaaju euh, ñu leen a gërëm bu baax a baax seen technical work bi ak seen xarañteef parce que ñoo mën a toog fii ba image yi di leer sound bi di ñëw kon ñoom tam kenn du ñëw ak ñi doon seetaan yëpp ñu contribute saak ñu bëggoon a contribute ak ñu ko seetaan afta yëpp ñu ngi leen a gërëm di leen santa Gaye Njoro beneen yoon ci Gambia. jërëjëf uh, that's all we have for you um, on today's Youth Bantaba uh, biir Gambia show rather hmm. here in our main studios on Gambian Talent TV. xanaa dama I am used. Wow, it's normal it's normal. so mooy loolu uh, comme Ramatoulaye lu ko rek we are praying for the late VP may he is so rest in perfect peace and we are praying you know that the one that is going to represent the VP will will will have some similarities with the VP you because a lot of people are truly, um, you know, um, have have have um, said a lot of good mm-hmm. testimonies uh, to to to the late VP. Very energetic, you know, uh, visionary leader. Of course, he has he he he he he has um, loved this country to the end. Mm-hmm. So uh, we also pray for Idime, uh, Ya Allah. Um, have mercy on his soul and also uh, make him among uh, those that will be uh, in Jannah. So until then, we come you in your way tomorrow with another interesting episode of the Abu Bill Show. And uh, a special thank thank thank you to our uh, technical team, uh, Sophia Jaju, and also um, Binta Njai for uh, the amazing job that they have been doing for the um, last one hour. Until then, do have a wonderful and a pleasant day. Bye bye. maa ngi dama yomboon su maa ngi dama yomboon boo ma tegee béréb du ma jóg ma jooy waaye de waxal yaay dina léegi moom nag moom yaa ngi fly fly to fly bu la yàlla taanee sometimes